wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad ibni abdillah wa ngi nuyu ci barab bi yépp di ci jiital suñu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo lañu yàlla baaxee ñu teewee jataay bi jiite ko mu di Cheikh Mouhamadul Moustapha ak ñim fi nekkal ci ay rakkam ak ay doomam ak jarbaatam ak ay jëwriñam ci liggéey bi ak bokki bi yépp di am mbégte nag ci teewaat ci bis bu tedd bii nga xam ne la sëriñ bi doon ñaan boromam te gëm na nangu na mooy mu nekk bis bi gën ci ay bisam allahumma ij'al xayra ayaami yawma alqaaka te xam ne bis bii ci la wuy ji boromam daje ak boromam bàyyi ko njaareem ñibbisi bi ci Touba ci la wàcc kon ab liggéey ñu di ko fàttaliku te fàttaliku gi nag nu war cee waxtu wu nekk ay bind laxat kaana fi qasasihim ibra li uli albaab maa kaana hadiisan yuftara walakin tasdiqa lasi bayna yadihi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahma li xawmin yu'minun kon mu mel ni bis si nit yàlla yi wa zakkirum bi ayaami laa inna fi la ayatin li kulli sabar shakur kon bisi liy am solo dëgg dëgg dëgg ak li koy wutale ak yeneen yi mooy lañ cay def bis bi la ca xew lu rëy rëy te ba mu dellusee la ko dundalee nekkul lu rëy bis ba yow du mën a ci yow kon bis bi li koy wutale ak ay bisam mooy lañ cay def bisi nit yàlla yii nag ñu di leen fàttaliku la ca ëpp solo mooy lañ koy dundale ci ay waxtaan yoo xam ne dañ koy jële ci ndono liñ nu fi bàyyil muy ci seeni jeexit loolu moo waral nag tey bu ñu tànnee thème bu toll ni tasawuf al islaami yi muy le soufisme ci boppam taxawaay bi mu am ci saxal jàmm akub déggoo ci société bu muy bu tasawuf nekk bu nekk wala bu ay mu tasawifuun yuy dund tasawuf nekk yu nekk maanaam tasawufu taxawaay bi mu war a mën a am ca tasaare jàmm ak dal ci am réew loolu dana nekk lu am solo parce que xadimu rasul mi nga xam ne eh, léppam ci loolu la ko def wa biya jaddidi sabil bi mu ko waxee bilaa idan aw alam yu la wax wa biya jaddidi sabil bilaa idan aw alam maa ngi ñaan nga rénové yeesal yoonu yonent bi sallallahu alayhi jaare ko ci sama liggéey waaye nag ci lu andiwul fitna ak lenn loo xam ne luy mettital doomu aadama la kon moom e, liggéeyam da ko fonde ci jàmm ak salaam te ngànnaayam yi nga xam ne moom la doon jëfandikoo tasawuf dafa bokk ca li ci jiitu wax na ko na ko bi muy lim arme bi nga xam ne moom la gànnaayoo tasawuf fa tasawufun saafin amal la si yatajassasul asraar yi fa tasawufun kon tasawufu taxawaay bi mu am muy njàngaleem tasawuf taxawaay bi mu am eh, thème la bu am solo boo xam ne benn thème ëpp ko solo surtout nag ci jamono yi ñuy dund nit ki dañ koy jàngal ba mu xam li mu ñu tarbiyee ko ba mu mel ni war a mel kon fokk ñu delloosiwaat tasawuf te tasawuf mooy tarbiye mooy fexe ba nit ñi ñu di leen tarbiye tarbiye mooy fexe ba jikko yañ fekk ci ñoom ci yoo xam ne lislaam da koo bañ ñu tàggat leen bañ teqalikoo ak jikko yooya melokaan yañ war a def ci ñoom ci islaam yu sopp ñu fexe ba maanaam def ci ñoom jikko yooyu ci baatu ndigal ak tarbiye loolu rek moo mën a defar société bi mu mel na war a mel parce que jikko yi mu wax yépp tarbiya ko mën a dindi ci ñoom te ya ca waaye ca baaxit tarbiya moo ko mën a def ci noonu kon nag il faut ñu delluwaat ci tarbiya dëkkalaat daara yi tarbiya yi waaye nag jaarale ko nag ci njàngaleem sëriñ bi ak nam ko doon defee loolu bu ñu ko defee rek lépp dana baax ndax uh, yi mu wax tey bari aana fu ay am te moo ko fa indi surtout nag baat bu am solo bi mu tàmbalee muy ñaaw njort li ci wax duñ ci dellu si waat bari aana lu yàqu ci ay diggante te ñaaw njortu moo ko indi nit ki def mbir nga commenté ko noo xam ne bokkul ak la ca borom jublu loolu lépp tey nit ki day rafet njort tayit loolu moo waxoon wala tastiwil asanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsanu ci iza llati ko wa baynahu adawa ka annahu waliyyun amin nit ki def la lu bon wax la lu bon nga ne ko dooma ko dàq maa la dàq wax lu bon dàq laa def lu bon sunu borom nee na ki bëgg a gën ci nit ñi day du def noona ki bëgg a gën ci nit ñi day jëlale ak a jéggale ku ko def lu bon mu ne mu am fulay ban ko dooma wàllu lu bon du la toppandoo nga di ma wàllu lu bon man la nga ma fekkan muy lu baax rek laay wax yàlla nee na damay xëy wullil la ko ba mu nooy nepp muy wax ci yow aw yiw di moytandiku ab safaan ci yow loola nag nee na yëmbut wa maa yulaqaaha illa lasiina sabaroo nit ku mënta muñ yaatuwoo dënn doo jéggale doo jëllale doo muñle waaye nee na ku ngeen fi gis muy jéggale ak a jëlale ak a muñle maanaa faw mooy jiitu ay moromam ku ngeen fi gis ma jox ko lu ma joxut ay moro lu ma joxut ay moromam def ko lu ma defut ay moromam xam leen na la jiitu jël la tax ma may ko loole mooy jéggale ak a jëlale ak a muñ wa maa yulaqaaha illa siina sabaru waaye wa maa yulaqaaha illa zu ajrin kon nag nañ góorgóorlu ci jikko yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi jàngale di jéggale ak a jëllale tey muñ lënte loolu buñ ko defee rek société bi dana baax loolu nag mënee su koo am lu di ko jaare ci yoonu tarbiya kon sëriñ bii ñu ngi lay sant bu baax a baax eh, di lu jataay bu baax di ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.